salaamaaleykum mbokk yéen ñi safoo seetaan Click Dakar 221 tey nag duñ fi nekk yaakaar naa di guddal wax di présenté naan kii ak kii jëm ñu jàkkaar lool waxuma la Sénégal mi adduna xam nañ ko ci événement yu mag waaye rawat na li nga xam ne mooy coupe du monde ak coupe d'Afrique waaye ñu nekk ci nag période coupe du monde ñu gis jaloorem fi def yu nekk waaye rawat na nag ah euh, match barki démb Sénégal ak Équatorial macha allah gis nañ lim fi def ay révélation yoo xam ne macha allah àdduna yëpp ngi koy teg France 24 ku ne ngi teg image ku nekk a ngi image am ku xam ak ko xamul mu def jalo joo xam ne yaakaar naa kenn dootu ko euh, euh, waxati ci Sénégal muy vidéo bu mu def génn marti boobu mu ngi def 24 heures mu génn def benn vidéo révélé wu macha allah wax li nga xam ne moom la mooy escoru Sénégal ak euh, bi fi muy jógee ak lépp dañuy bàyyi mu nuyoo rek ñu xuus ci wax ji muy si yaay soxna Saliou maman nii nañ la. waaw salaamaaleykum àdduna maa ngi ziyaar ñëpp di jox ñëpp seen wàccuwaay. di nuyu sama buntu ci sëriñ Touba Seexul Xaddim di sëriñ Mountakha Bassir di ko ñaanal gudd fan ak wér waaye di ñaanal sama sang ba yal na yàlla yokk ay leeram di ñaanal Cheikh Béthio Thioune yal na yàlla yokk leeram ci kanamu sangam bu tedd ba maa ngi ñaanal Sénégal ñaanal àdduna wërngël képp diaspora fu soppee soxna Aida nekk rek maa ngi lay ziyaar te xam naa ne àdduna wërngël képp xol boo ubbi fekk ci soxna Aida Saliou moment macha allah yaakaar naa da ngay seet yàgg nga gis mais li nga gis témb ah waxuma ne mosoo ko gis mais doy na waar parce que dama fi ñëw ak sama caméra noonu laa ñibbi si waate laa ñibbi waate ak sama caméra keroog tourné wu ma parce que damaa ñëw nga ne ma xoolaguma te bëgguma wax loo xam ne mooy dama nekk doomu Sénégal nekk ci réew mi te bëgguma lu ma wóorul waaye guddi bu ma tëjoo dem ci ma war a dem ba toog ba pare naa la wax lu mel ni midi leer nañ loo xam ne kenn du ko dindi ma wax samay caméra dem bi ma bi ñu génnee itam sama confrère ñëw fi muy Gallo Univers Info ak ki nga xam ne mooy Feeling Dakar jël la nga wax loo xam ne macha allah dafa leer nañ ci match Sénégal bi yaay booy sa seet lan la ak fan ngay roote. idaani am néegu néegu néegu wéet ak yàlla am néeg boo xam ne dama fee wéttali ko sama borom. Mhm. di ko fa ñaan te lu ma ko ñaan mu may ma ko. idaani match bi ma amee huit ans laa ko commencé maîtriser. yaakaar naa équipe nawetaan mhm. sama koñ bii nga dëkk rek jamono yee ñoo nga fekk fi coupe départementale ñoo ko sama kanam man su ma xëyee taseeg yow sax jël sama loxo teg ko ci sa loxo ngay wuti football bu dee coupe la da nga koy jot incha allahu rabbi mhm. match dama ko maîtriser mayu yàlla la nag ndax man yàlla laay ñaan yàlla sama borom laay ñaan lu ma am yàllaa ma ko may ndax moo moom sama jëmm ji moom sama ruux bi moo ma jagleel bi ma juddoo mu def ma ni ko neex def ma soxna Aida moom Serigne Saliou mm-hmm. ma juddu juddoo ni ma juddoo yaroo ni ma yaroo màggee ni ma màggee mm-hmm. seet nag sama deret la ak sama xol yàlla daf ma ciy fay ak sama liggéey waajur wu jigéen mm-hmm. démb ci suba am na benn kii bu tudd fond noir jël si na ma fi may wax ci yaay maa ngi sol sama drapeau vert jaune rouge bi ñu ñëwee sax mberteel lan ñëwee boobu match bi commencé gul mais dañ ma laaj ci sama waajur wu jigéen ma xam ne dama namm sama yaay. ndeysaan parce que Ida ni man sénégalais laa. Mhm. dama bëgg sama drapeau vert jaune rouge étoile. Mhm. li ma ciy yëg man maa gën a bëgg président de la république Sénégal. Mhm. bëgguma ñu jooy bëgguma ñu mer bëgguma ñu triste. rawati ci les lions du Sénégal. ñu dem wutali loo xam ne ñaata habitants lañu. ak ñi nekk diaspora. ñu dem wutali ñu benn mbir moo xam ne ñoom ñu dugg ci biir stade bi di ko football ay néew ay xale yu néew doole lañu. ñuy taseeg ay équipe ñuy jox ñooñu ay favori. man saa yu Sénégal bi ma commencé di wax ci match ci Coupe d'Afrique la. dëgg la mais bi ma tàmbalee ba léegi. ndam rek incha allah mais yàlla moo a koy may. ndax man sama jëmm ji sañu ma cee dogal dara. njagam sama yaakaar bu tedd bi la yàlla tege dogal ci moom ma sama ak man te man kii mooy dib sama sëriñ man sëriñ saaliw mooy sama sëriñ man sëriñ saaliw mooy sama sëriñ mhm. idaani mhm. sëriñ saaliw mooy sama sëriñ yàlla dama koy ñaan mu may may ndax façon bi may ñaanee yàlla sama borom la mhm. dama koy ñaan akuk cag dama koy ñaan akuk sell mhm. dama koy ñaan ak ndiggalu borom kër idaani li ma boole ci senegal ku ko boole boo ñaanee yàlla mu may la dëgg la bi ma duggoon fi may tuut moom laa àndal muy sama borom kër ba fii may waxee ak yow te yàlla na ma denc mm. yàlla na nu màgget ba xuggi taas mm-hmm. idaani mm-hmm. man ci ndigalu borom kër rek ci lay dox mm-hmm. idaani yàlla may ma waajur wu baax. Mhm. woo xam ne mooy sama wéetaay mooy sama révérence mooy sama nawle. Mhm. mu dem bàyyi ma fi ma dem caatam. Mhm. idaani ma juddoo ci ay jaloore. am mag yu baax. idaani bokk ci réew mu baax bokk ci famille bu baax. idaani ma xam li ma bëgg. idaani. yàlla dogal ndogalam yii ci man. sénégalais yi dañoo am koo xam ne. bala ñuy xam li leen yàlla defal ma wan leen ginnaaw. ngala maa ngi woote ku bëgg a ñam ci sama jëmm jii ci li ma yàlla baaxee. ci li ma yàlla di may ñëwal ma jox la ci sa wàll. xaw ma tey la xaw ma suba la. ndeysaan fii yàgg da ngay wér. man jaam laa rek. Mhm. xaw ma tey la xaw ma suba la te li ma am iñaanewu ma ko senegal woowu ma état woowu kenn te yabu ma sénégalais dama leen a respecté. Mhm. ba sañu leen a débrayer. Mhm. may ñaan ci barki Serigne Saliou mi ma amul ku dul moom. sénégalais yi kii seen alal la seen mbokku taalibe la mhm. seen doom la waaye équipe nationale mhm. waaw idaani dugg nga sa kër nag équipe nationale idaani démb match bi bee passé dama ne 3 à 1 waaw foofu laa bëggoon ñëwee teel a li bari mu bari bëri trop yaay booy ma dellu ci internet bi ne leen mhm. du ma xëccoo ndam laa ngoog ku ko bëgg na ko jël na maa ngi xaaraat bii di ñëw bii di ñëw ma toog ba lënd si ngoon dégguma score. dëgg la kenn waxul. ma ne duma wax tey. Mhm. mardi ma fanaanoo ñaan sama borom ba bés set. Mhm. ma gis li ma fi ma ko yàlla di jaarale ni accordeel naa la ma yëg ci li ma yëg taxaw wax ne leen 2 à 1 waaye 2 à 1 yi penalty yi. Mhm. franc corner. foofu foofu laa ñëwee 2 à 1 nga ñëw ne 2 à 1 joxe ko avant match bi tey. ba pare nga ne coufrant franc penalty corner encore bii yépp demee noonu encore yaa ay Aïda Saliou kii maye dara jaaxal mais loolu yéeme na ni ma koy ñaanee la damaa bëgg yàlla waaye damaa bëgg Seydouna Mouhamed ne woon naa leen fii ci sa émission laa ko defee woon mm-hmm. may la sama doom Wally Seck dafa maa won yonent bi mm-hmm. waaye dafa won yonent bi jirim dafa wan yonent bi baayo mm-hmm. dafa wan yonent bi ku rafet xol mm-hmm. waaye dafa wan yonent bi taalibe sëriñ saaliw mm-hmm. waaye dafa wan yonent bi ku bëgg yàlla li daan di man defaguma dara li daan bari na club yu nekk Sénégal mm-hmm. jour yi daan toog ci banc dugal naa leen ci biir équipe bi partout équipe bu tubaab non wàllum football moom équipe bu anglais équipe bu espagnol équipe bu brésilien équipe boo ku daan toog ci banc bi soxna ay def fexe na ba nga dugg ci stade bi te kañ ba nga bokk dëgg la waaw wane woo ko de wax dëgg yàlla i daani da nga nëbb lu bëri coow li borom victoire bi dana dégg mhm. ne soow ki war a yëngu saako bu feesee du yëngu dëgg la dafa am foo xam bu ñu fa tolloo dëgg la nga defal ko sérieux mhm. da ngay bàyyi nit ñi wax mhm. man du ma wax ñu commentaire seen bopp damay bàyyi Sénégal commentaire yi gis nga ku def da nga naan dégg sama doom ju baax daf maa ni may yaay ma ne ko naa mun ma boo defee ndam ba pare ni ngay defa ma jaaxal ni ngay yaroo ak ni ngay teeyee ma ne ko sama doom ci yow laay xool bu dul dara sax war naa laa sóor barki Serigne Saliou ku am doom ju mel ni Waly Seck Waly Balago Seck bërti bërti waratu la mm-hmm. Waly moom a wan Seydouna Mouhamed mm-hmm. li ma lenn li man maa ko moom mais lenn li moom moo ko moom mm-hmm. il faut que ma respecte sénégalais yi te man bi ma juddoo ba léegi xam ne aw ma fi waajur wu jigéen aw ma fi waajur wu góor waaye sénégalais yi mate nañ ma ay yaay mate nañ ma ay baay mate nañ ma ay nijaay mate nañ ma ay frère mate nañ ma ay sœur man dafa am lu ma war bu feesee du yëngu affaire bi sénégalais yi kan moom moom deux bi à un yi mhm. ku moom penalty bi soxna Aïda Saliou ku moom <laughs> Wally Seck sax laay wax moom lépp franc bi waaw nii lay demee kañuwuma ba tey mhm. dama naan deg maa ngi ñaan ci ñaanukaay bi ci yàlla sama mhm. borom yéen ñi mënul toog leen ba jarul bërti bërti jarul xuloo jarul xeex dal leen mana mana mana joo gis dal leen ki mën bu defee ba pare day toog ci këram làqatuwaat dellowaat yàlla ni ko alhamdulilahi rabbil alamina jërëjëfa yàlla sama borom sant naa la gërëm naa la dimbaleeti nga ma maa ngi ñëwaat ngeen def na waaye bu mas ci amee rek bu ndam amee rek moom victoire démb bi maa ko moom. de ah waaw moom. c'est moi démb moom yaa ko moom maa moom victoire bi bàyyi leen nag sama victoire. maa président yaa yaay booy mais gis nañ ne ak tous les yi. waxut rawat na si di nekk Sénégal ak télévision yi ñëpp lay woo àdduna ñëpp lay woo am na ñoo xam ne xamuñ sax dañuy liggéey numéro di la woo en tant que retour bi nan nga nan nga ko dundee da yow macha allah dara foogul sa bët comme comme rek man kilifa bu nekk na la man àdduna yëpp woo nan ma tey benn xale bu baax dafa ma dugalal cinq cent mille ndékki bëgg naa xam turam sax mënu ma ko xam jërëjëf maa ngi lay sant bu baax mm-hmm, mm-hmm. taraanga bu ne ñëw na fi mais ba tey rek ma xam ne yéen a ko moom sarax yi may def pour yéen jaral ngeen ma yéen mm-hmm. sénégalais yi Euh, patriote la maman des lions mhm. maman du Sénégal laa king des vaillantes mhm. waaye da leen dem voir di mhm. gëstu samay video man la ba tey man la ba tey mais ki nga xam ne mooy euh, le président Macky Sall wala ministre bi ba léegi jokkoo ak ñoom ci li nga xam ne moom ngay liggéeyal ci équipe nationale te gis nañ ne toujours da ngay génne say équipe ñëwee day génne say sarax moo xam 500 millions moo xam 1 million génne say sarax euh, saraxe ko waa xam nga ko benn xam nga tey boo nekkee ci sa réew en tant que sénégalais dama ñaan yàlla 11 jours yi nekk ci biir stade bi fii ak 2 ans 3 ans ma am ci sama doomu bopp ju ci biir nekk. ñi ci nekk ñëpp samay doom lanu ah. fii la nu juddoo te ëllëg lépp lu nu am fii lay dellu si waat mhm. kon jàppale leen jarul xaar président. pour man réew boo ci nekkee nekk patriote. dafa sa loxo aajewul fëgg dënn di woo état wala di woo non samay doom laa dimbali. Mhm. Mhm. samay doom laa jàppale. équipe national jour bu ci nekk man maa la jur. Gana Gueye ma yaayam. Mm-hmm. Sadio Mané maay yaayam. Mm-hmm. Euh, kii Koulibaly maay yaayam. Ilimane Ndiaye Ilimane Ndiaye maay yaayam. Euh, partout ah. ñoom ñëpp yaay euh, Aliou Cissé ñoom ñëpp Ahmadou Bamba ngi ci biir. Bamba Dieng waaw ah, xam nga ni Bamba Dieng. waaw Ahmadou la te Ahmadou mooy Baye Saliou. kon kon ñun dañu war a jàpp ah. onze heures maay seen su dagg tey ji su yàlla. dogaloon maman des lions su yàlla ma mën a dem kër yaay jour bu ne balaa match bi. Mhm. damay dem remercier la. Mhm. saafonteeg yow. dalal la mhm. ndax ëllëg un jour viendra parce que réew boo ci nekkee di liggéey lu rafet retour day am retour yàlla nag moo gis retour bu gën ci àdduna dëgg la man bi ma yàlla di may huit ans laa am tàmmuma ci xaalis man seetee naa sax vingt cinq francs barke Serigne Saliou. Mhm. seete naa cent francs seete naa deux cent. dem nañu ba augmenté ma tey ba fii nu ma teg ñu teg ma fi. tey am na lu Sénégalais yëpp bëggoon waali sekk rek war na tax ma def ci eh, eh, man. waaw match dem bi boo gisee ma may ko Wally Seck ma tax ma may ko ko. Mhm. dafa bëgg Sénégal. Mhm. te bu nekkuloon waykat jour lay doon. dëgg la kon man war naa def samay propre moyen pour Sénégal am ndam. te yëpp ay xaritam lañ. non joueurs yëpp ay xaritam lañ. ñoom ñëpp moom moom ñoo bokku ndey ñoo bokk baay. démb Njóogu Mbay sama doom mi ngi toog ci kaw turbine bi. mais dama war a def. dama war a def dama war a def defan ah. remercier su leen neexee su leen neexul sax bu leen ma remercier parce que sama waru gar nga def mais maman ñu gis ne euh, bë voyante yi bëri na ci Sénégal mais tey macha allah laf cat li la yàlla may ci xool gis wax loo xam ne du am vaar benn yoon bari na ci Sénégal mais gis nañ ne am yenn voykat yi dañ voyante yi dañ la nangul carrément cent pour cent li nga li nga mën macha allah donte mën nañ mais dañ la nangul xam ne yaa leen féete kaw macha allah te ngay wax ñooñu tey. waa parce que ñi ma woo démb ay fayant dama ci am ay doom mhm. ma ci am ay doom yoo xam dañ dama leen bëgg dama leen assumer parce que mhm. yar bi respect bi mhm. ñu wax ba gàkkal kenn ku mel ne yaay faal affaire yooyu kooku man xaw ma ko mais xam naa ko si yéen dama koy suivre euh, ak xaritu sàmba la gis naa respect euh, Selbé Ndom sama mag daf may soulager demb rek woo na ma félicité na waaw loolu mooy àdduna am na itam koo xam ne benn voyante la xamoo ko xam naa soxna Abibatu acel ma dëkk man woo félicité la vraiment waaw Abibatou kon yow ma dem maa ngi lay félicité yëf yi ñun ñoo bokk ndey bokk bàyyi mhm. man a âge de huit ans la bi may juddu avion bi dama juddu rek man maa ngi juddoo Pikine tali bu mag madame Gassé laa juddu mhm. ñii seen rakk laa ñii seen sœur laa yàlla def la mhm. waali moo ma def ajaratu ah waaw sama doom waaw ci bi ko yàlla dogalee ci moom ma koy ñaanal nag waaye man bi ma juddoo la avion bi daanu damay ànd ak bur wi marche yëfu bur la marche dama koy ñaan man yàlla bu may programmer uh-huh. bébé des vaillantes la ma programmer est que man bébé des vaillantes la mm-hmm. tey ba ma nekk mère de vaillante mère de vaillante noonu la mën a demee mais du dara après mm-hmm. lépp Sénégal ok ndeysaan mayaat naa ñu ngi jëm ci beneen match boo xam ne ñëpp a ngi tiit yaakaar naa amagu amatu tiitukaay yaakaar naa comme génn ci match bi mais Angleterre la ñuy am te Angleterre équipe mag la yaakaar na tey Euh, lan ngay wax euh, ci équipe boobu jëm euh, lan nga gisagum wala instant yi tey boo doon joxe conseil wala leneen lan ngay wax. ñu gën a entraîner. sa doom yi. Lions yi. Mhm. Aliou Cissé ndamu démb bi ndam la dëgg la mais teglee leen ko ci seen. fàttali leen ko. ngeen dëgg man nañ mel ni tey ngeen di doog a commencé. coupe du mhm. Mhm. na mel ni yéen a ngi ci seen première match. football leen on a entraîné. on on sawar. Mm-hmm. ona a dëgër on a mm-hmm. professionnel. Mm-hmm. disme bi na ngeen ko wane. ngeen xam ne mel leen ne kuy doog a tàmbali. man nag. li yaa yëngal suuf li ma war ak seen yaay. cey. tous les jours je suis là et toi. waaw je suis ngi ci seen kanam. maa ngi ci seen ginnaaw. ci ginnaaw yàlla ak yonent bi. ci la làqatu ci laa mbaaru di ñëw ci yéen. samedi ñu xam ne lépp dëgg la sam samedi ba nga dugg ci kër gi. bu ma duggaatee ci ñaanukaayu yàlla bi uh-huh. sañu maa wax dara décision benn uh-huh. te dugguma ci ñaanukaay bi uh-huh. ci kurus gi ci siyaada bi ci ruq bi soxna si ci ruq bi su ma duggee ba génn dinaa leen tegal xam lépp dëgg la maman lay tàggoo sant ñaan mucc ak muccule di ñaanal sama naataango yi ma bokkal liggéey bi yal na leen yàlla muccal li ñu ci def ñoom it yal leen ko yàlla fay ndax ku yeewoo Sénégal rek sonn nga pour Sénégal maa ngi ñaanal ñëpp waaw sama doom karamba bàyyi saaga. karamba waaw conseil ko waaw sama doom karamba mën nga jàmbaar nga bravo mais bàyyil saaga. dégg nga rus ma ci rek man. xam naa sa yaram mooy tàng sax mhm. yëfi la. sa yaram mooy tàng ngay kii mais dama la ñaan man sa yaay. Mhm. man maman soxna ay da Saliou. Mhm. yow faramaareen nga. yaay frère Wally Seck ndax bëgg nga Wally Seck. maay seen yaay. Mhm. bàyyil saaga yi ngir man maa la ko ñaan. ndeysaan ngir yàlla war a suuli bul saaga dégg nga. xam naa ne sa yaram mooy tàng ak aal bi rek naa sa man ma nekkoon góor mën na mhm. am may saaga. Mhm. mais sa yaay mi ngi lay ñaan. waaw ak staff bi nga àndal yëpp. yàlla na yàlla def jàmm ci réew mi. ñoom lay ñaanalee tout képp koo xam ñoo bokk liggéey bi rek. suñu borom képp ku ne mën a rek am na loolu suñu borom may. waaye na rafet maa ngi ñaanal ñëpp. di di naan li xew suba yàllaa ko xam. Mhm. bu dee yàlla dogal na ma war a téyewaat micro bi amaana. Mhm. ndax wax mu àgg sax yàlla la neex lii xew tey balaa jant bi so. Mhm. suñ borom rek moo ko xam. man taalibe laa. damay yalwaan yàlla. di saraxu yàlla di di di di di di gën a jéggalu di gën a tuub. bu dee wax naa erreur. Mhm. maa ngi balu sénégalais yi. dama leen respecté mhm. dama respecté vert jaune rouge. Mhm. étoile ba nga xam ni su ma dee wax sax aw ma sago. waaye maa ngi ñaan ci sama xol bu rafet bi nga xam ne maa ko moom ak yéene bi ma am ci Sénégal. maa ngi leen di ñaanal idaani sama doom. maa ngi leen di ñaanal ak site internet yëpp. ñëpp ànd nañ koog man. waa di leen wax ne bëgglaat leen waajur yi. fonkaat waajur yi. bëggaat yaay yi bu baax a baax. bayre njaay amul bayre moo am mhm. waaye liggéeyu ndey añu doom mhm. yal na yàlla def jàmm ci réew mi mhm. seen yaay seen xarit mi ngi leen di encouragé jaa ngeen jëf jërëjëf merci